spécial waajal tabaski ak ren herbe épice ay épices 100 pour cent naturel fas yéene ñëw safal sàpp tabaski bi. nuyooti naa leen sama gars yi ayca dernière recette moom day mat dernière recette waaw koñ comme niñ ko defee euh, boobu ba léegi ba ñu ñëwee ak ren seen pack baa ngi disponible épices yëpp a ngi complet ndax euh, lakk yàpp bi dafa manqué woon waaye jotaat nañ ci. donc continuer leen di woote 77 390 69 72 pour mën a am euh, ci promotion bi 5 variétés épicées à 6500. michu bi nga xamante ne gars yi tàmmu nañ ko bëgg nañ ko di ko seetaan ci Alphie waaw mu nekk michu yi cëppaandaw gi nag waaw waaw laataa loolu rek nañu jël sunu nokkos tàmbalee roof. voilà mooy michu bi ñuy jël rek di ko enveloppé michu yi fondante voilà bu ñu wutee suñu ay coin tarkal dugal roof. roof ko bu baax a baax ba nga ba ndawal bi yëpp euh, saf bu la neexee mën nga jël sa roof comme ni ñu ni ñuy defee nii euh, roof wala nga jël laaj voilà roof ndawal bi bu baax fi mu nekk nii gigot 3 kilos jàpp 4 kilo euh, moom laa am mi ngoog du ma def moutarde du ma def vinaigre nokkos rek laay def ak épice voilà donc ñu ñëwaat ci ginnaaw nokkos rek laay def ak épice voilà léegi nag moment bi ñu daal di laal xorom voilà parce que fii la war a gën fii la war a safee ba pare ñu xorom maase ko ayca léegi nag épice bi na ñëw lakk yàpp généreusement li ciy def couleur moo ciy def goût voilà nokkos xorom ak épice. parce ndawal bi dafa dafa mag te bëgg naa mu sax ci ba pare laataa ma koy dugal ñu ko folote maase ko bu baax damay jël papier bi ma defoon bi ma doon laxasee ñu njëkk ko ci laxas nii ci copier aluminium lay nekk dal voilà yëf yëngoog comme day nag dama ko teel a prévoir tey dama ko bëgg bàyyi 7 heures au four 7 laa ko bëgg a bàyyi ci four bi xool bu ñu génnee ni muy fondante ak ni muy men ayca ñu dem ci accompagnement yi nag dinañ defar ñetti trois façons tànn sa bu la neex la ku ci nekk bu la neexee reprendre ñett yëpp wala bu la neexee dàndi ci sa bu la neex donc gratin gratin classique ça marie très bien ak méchoui dinañ defar couscous dinañ defar légume sauté beneen façon légume sote boo xamante ni bokkul ak euh, bi fi jot a jàll voilà léegi damay xool yii yëpp rax baal leen ma àq yan nañu borom bi baal jéggal ñu nangu ñu lépp luñ ko ñaan bonne fête voilà bon fête sama gars voilà tombé ndox bi bax mi ngi leen di déwénati sama gars a ngi koy dégg. léegi ma. Ricardo di déwénati man fàtte naa sax épice légume bi voilà. voilà épice légume bi boo ko si defee soxlawul ngay def ñoom safran ak ñoom seen ba pare da ciy def bu donc gis nga gis nga couleur bi mu ciy def ci sa raisin def say olive ku nekk ak loo am rek ak loo ciy def voilà nañ ci def tuuti dëwlin def ko ci micro-onde bi nag mu nooy tuuti def farine pour gratin bi fii dagg naa dagg naa aubergine bi en cube parce que sa légume sauté bi dama koy def tay cube ba jël poivron bi ak soble bi boole leen mais après ñoom ñëpp dama leen di jaxase mais duma leen boole cuisson nag béchamel bi meew bi ñëw fekk si ko voilà ñu xaar mu épices ñu monter gratin bi mu dem rejoindre méchoui bi aubergine bi dama koy griller tuuti da ciy def goût bu neex voilà avant ma ciy def euh, courgette bi donc béchamel bi damay dolli meew parce que dafa daan voilà léegi dañuy jël épices def ci ak noix de muscade xorom dañuy généreuse voilà mënuñoo am fête bu gën a rëy te ainsi de suite def euh, béchamel voilà léegi damay enfourner quelque crème fraîche rek laa ko may man moom daf ma neex ci euh, gratin voilà bled bangok ku nekk rek ak légume bi nga am voilà mais variété légumes bu coloré vert jaune rouge voilà léegi bled bi dañ koy sàppali ak épices légumes bi toujours def xorom bu la neexee mën nga def tuuti laaj man samay légumes dama siy bëgg damay bëgg mu sàpp laaj mais légumes sauté donc dama ci sànni tuuti laaj. voilà léegi nag dernière étape bi soble bi ak poivron bled bi ak euh, aubergine bi ak ñoom seen ñi ngi nii après yëpp lay mélangé. kumpa gi nag léegi nañ ko ubbi rek xool lu muy joxe voilà le temps ñuy defar nañu couscous légumes sautés yi gratin voilà léegi nañu ubbi machine bi. kudd bi ndax dina ubbeeku voilà. mi nga ko laal mu topp la lay doon ñor na xom voilà gis nga fi ñu roofoon yëfi daal ñor na xomb waaw léegi nag terminer dressage bi rek moo ci des voilà moom soxlawul sax kuddu ak fourchette loxo rek boo ko jëlee voilà boo laalee mu topp la léegi nag na ku nekk ñëw rek jël li la doy ok nii rek daal di servir waaw yëf yi nooy na nepp yëf yi. voilà clap de la fin bonne fête Eid Moubarak. Eid Moubarak bonne fête. bonne fête. voilà mi ngoog sama gars yi on termine en beauté euh, tey ci recette bi am ngeen ñetti façon accompagnement ak michu bu doy waar toujours ak Reen Herbes Épices sama gars yi euh, Reen Herbes Épices mi ngi leen di souhaiter une très bonne fête. di leen ñaanal di leen déwénati waaye tamit Alphie Cuisine euh, di leen wax kenn du yéen baal leen ma ak sama gars yi euh, ci bëri wax bi voilà ci sonal gi ma leen sonal et puis je vous souhaite une très bonne fête Aïcha mi ngoog euh, recette baa ngi dugg léegi comme ñun tey la suñu fet voilà Léa Léo Ricardo vous souhaite une très bonne fête. allez Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. allez déwénati à tous jaajëfal naa leen sama gars yi kenn spécial waajal tabaski ak ren herbe épice ay épice 100 pour cent naturel fas yéene ñëw safal sàpp tabaski bi